jërëjëf mbokk yi di leen nuyuwaat bu baax a baax a baax à travers Bprod Média mbokk yi di amaat mbégte bu baax a baax a baax saa su ne di dalal ay kilifa waaye tey ni ñu koy defee ak yéen rek dañoo dellu si waat fii nga xamante ni moo di diwaanu Tamba seet seet fi kilifa bu mag boo xamante ne àdduna dootuñu leen ko présenté. Chérif Abdoulaye Sow di nitu yàlla boo xamante ne tey bu ñu duggee ci dëkk bi waa dëkk bi wan nañ ñu cër bi mu fi am ndax it fekk nañ fi kilifa gu ne fekk nañ fi nitu yàlla bu ne waaye ñëpp nit koo xamante ne am na yaakaar ci àdduna ñëw na fii tey seet si ki nga xamante ne moo di Chérif Abdou Sow ñu noonu nag tey ñu seet si ko fasiyene waxtaan ak mom ginnaw ñaan yi nga xamantene defoon nako ci élection yi ñuko aduna àdduna wala ñu bari diko waxe ci dëkk bi fanal président bi nga xamantene mom lañ doon ut na xit fekk nañu fi kilifa ku ne yag fi ñew di sakku ay ñaan ngir jëmmam joju non tay nak ñu fasiyene waxtaan waye buñu paré ci loolu mbokk yi dinañ waxtaan ci jafé jafé yi nga xamantene aduna àdduna nit ñeen koy jundu mu leen ci safaral di leen ci fajal nga xamantene modi seen jangoro tay biñu ñëwé dañu fekk nga tour direct bu bari ray ay jet genné ay sarax loolu lepp bëgg na tay ñu waxtaan ci lan mo waral loolu nonu dañu lay nuyu rek bay la nga nuyu ko mbokk internet yi assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatu ñu ngi leen di nuyu di leen wax bismillah fi ci kër gi di leen wax bismillah ci dëkk bi mhm. fi ngeen ñëw fii ci xam-xam tan mo ci lu ñuy dox mhm. ci wàllum faj aaju. Mm-hmm. ci loolu loo nekk ci lu ñuy dox. Mm-hmm. nit bépp nit bu jóg nga ñëw nga indi fii sa soxla nga uute ñu ko. Mm-hmm. yal na yàlla mottal soxla bi loolu kees moo nekk lu ñuy ñaan. mais moom moo nekk gën mm-hmm. mm-hmm. na mm-hmm. yàlla defal lu gën ci kàddu yooyu yu ama am solo yooyu comme ni ma ko waxee dinaa ñëw ak yow ci actualité waxtaan bi nga xamante ne waa dëkk bi boobu ak léegi ñu ngi koy wax naan lu Serif yaa ñu faral suñu président waaye Serif tey dama bëgg a dooree ak yow ci li nga xamante ne moom laa fekk ci dëkk bi ndax damaa ñëw fekk fi si ay ndaw yu bëri yoo xamante ni koo ci woo rek Serif lay wax. don doon turundo waye bang ba ma ne li waral tay ñi ñepp tuddu sërif sen wajur jafé jafé lañu amon ci aduna ba amatu ñu won yaakar am dom ci aduna ginnaw bi ma ak ñom yalla may leen dom ñu giraat lepp tuddé mako jigen jigéen ji mënta am dom yalla may na ci cër ba ku gis sërif aajoom faju waaw xale yi nga fekk fekk nga fi ñi mhm. ñu tudd nañ sërif abdul tur yi bari ñi ngay tudd nañ tudd nañ sërif hmm ko suma maam lañ tuddé yëpp fi ñëw mhm. mu fi jàng daara bi ñu bari ay kale ñooñu ñi nga xam te ne seen yaay dafa mënul am am njaboot mhm. njaboot dafa ko jafe woon ñu jooytu ma ma def ci ay ñaan ci yàlla mun munam mhm. yàlla defal ñu yàlla yombalal ko mu am njaboot ñu ci bari ñu jël seen njaboot bi tuddee ma wala tuddee suma maam kat yi indi jox ma ma leen di koy jàngalal alquran loolu sant yàlla la Mm-hmm. ñaan yàlla yàlla mu nangu ñaan bi loolu fii yàlla rek lay neex nit ku mun mun doomu aadama loolu yàlla lay neex waaye noonu yàlla am na sabab mm-hmm. ne na la sabab bii nii bi lii ak lii lii ak lii def ko boo ko defee dina faj soxla bii nii mm-hmm. boo ko defee dina faj soxla bu yàlla du war doomu aadama nit noonu mun nga taayal nga bañ kaa defee ni ñu la ko waxee mun nga taayal nga bañ a dem uuti ku liñ ko war a uutee waaye boo ko defee ni ñu ko war a defee nga uute ku ni ko war a uutee yàlla loo ci loo ko ñaan mu defal la ko. Mm-hmm. Chérif dama koy dégg dañu naan euh, tey koo jëflanteel ci wàllu woowu danga naan ko teel sa alal ba dem hôpital ba ñu leer la ne yow jël nga ëmb nga soogee ñëw joxe kaaj boo demee ba yàlla may la sa bopp nga soogee ñëwaat li nga xamante ni moom nga fi amee. waaw ñun xam-xam bi noonu ko joxe boo ñëwee nga dem da ngaa soxla doom dama lay liggéeyal ma ne la boo demee boo nekk ci diggante da kaaj ni ko nga jox xaaj bi.

te daf la koy defaral nga teg ci sa bët bu la nexé sax nga bayyi ba gis soogee fay muy no no nak euh bari na sëriñ yi ñaan fi la ñuy ñëwé ci yow di fi ut ci xam-xam wala ñu ñëw nga defal leen ko ñu génn na ñom ñoko liggé no non loolu yàlla def xam ko ci diggante ay nit kess lañ ci def. ci fepp lañ ci def. nga te nit tay mu nga jënd fas fas bi mu baña tok ci sa kër. mun nga jënd nag nag bi mu bañ a toog si sa kër jur bu ñu la ko liggéeyee jur bi du génn sa kër jur boobu ci kër gi sax lay nekk di foofu mun a génn ci kër gi. Hmm. yi moom leen topp ci kër gi lay topp. nga te ñun da nga xam nga suñu sëy yi. di hmm. gis ñu may la nit ki nga xam te ne xamoo ko. Hmm. naa ci diw xale bu jigéen bi war a sëy si ak ku góor ki mu bañ. wala ñoom ñaar ñu màgg ñu naan buggante wuñ. ñun loolu la ñuy moo waral noonu buñ la ko defalee si diggante nit ak nit. Mhm. xay boo génnee àdduna keneen ki du mun a ànd ak kenn kenn. Hmm? su ma noonu bu ci diggante góor ak jigéen képp ku ci njëkk ki dootul a ànd ak kenn dootul mun a kenn. Mhm. bokk na ci ñoo xamante ne. moo la mun a tàggaloo xay bu keneen nit ki bu yow da ngay gerte da ngay gerte nit dootul mun a nekk ak kenn. Mhm. noonu. am na ñoo xamante ne dañu koy faral di wax nit ku ñuul képp lañu mën a noonu nit ku weex mënuñu ci moom dara naka nga def nit koo xamante ne du nit ku ñuul nit ku weex la wala doonul jullit parce que ñu bëri dañ naan ñoo ñoo gën a naqaree noonu. non bu dee ci bind ku ñuul doo ci bind ku ku ku mm-hmm. ngay def mooy doomu aadama. nekkee ci da nga tari ci suuf. Mm-hmm. wala nga tari ci fas bi di nopp doo ci tudd ku ñuul doo ci tudd ku xees. bani aadama te ngay wax ñu la ko jàngale ñoom mm-hmm. bu ñu ko noonu nit ku mu mënta nekk bu dee asamaan mu ngi lay tiim yaa ngi dégg ci suuf te déet liñ lay jàpp nekkal ku nekk noonu nga ti balaa ñu koy def dañuy xool bu xool sa biddéew xam sa biddéew fan la nekk kii biddéew bu dee ci ndox la nekk bu ñu defee fas bi ci ci taatu ndox lañu koy suul bu dee kii biddéew ci safar la nekk bu ñu defee fas bi fuy tàng fuy tàngal loolu foofu lañ koy suul. Mhm. bu ñu defee ñu xool ñu xam ne ci jaww la nekk dañuy def nopp bi buñ paree bu ñu ko defee dañuy dem xool garab bu nekk ci diggaal lañu ñu takk ci kaw. te mhm. di ko ëff. ku nekk balaa nga koy noonu da ngay xam bidéew fan la nekk. Mm-hmm. bidéew. macha mm-hmm. allah mbokk yi la ba tey ci yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg bokkoo ak moom. Euh, mbokk yi Thierno Abdoulaye Sow la ba tey ñu dalal ko fii ci biir Pro Média yéen ñi bëgg a jokkoo ak moom numéro téléphone yaa ngi noonu ci suuf écran bi waaye leneen li nga xamante ne saa su ne dama koy faral di wax euh, bi nga ñëwee la solution am ci biir néegu sëy yi garabu kàttan gi nga xamante ni euh, bis boo ko jëlee jëfandikoo ko ni nga ko waxee. dootoo jàmmatati néew kattan sa giir dund ndax maa ngi koy wax sànq nga naan ma góor day am ñeent fukki at xaw ma quatre-vingts ans ci olof teewut mi ngi ngénte ci biir dëkk bi faj googu seer na amatul ci réew mi. Mhm. góor bu nit ku feebar la. Mhm. a dem quatre-vingt-cinq. Mhm. di am njaboot. sa yax dëgër na mhm. xam nga dafa am ay nit ñoo xam ne seen yax dëgër waaye bu nekkee sa yax dafa dëgër war nga mën a def wax quatre vingt cinq kay am doom nga xam nga narwa narwa lañ koy wax mhm. tuuba crocodile la wax ci loolu lañ koy dindi dañ mhm. ko dindee dañ koy wallu ba mu ba mu nekk ba mu nekk suuf am luñ ci boole ñu liggéey ko bu soobee yàlla loolu nit bu ko jëfandikoo bu keroog ngay génn àddina keroog ay génn dina dina jàmbat lu nekk bu mu des ngóor yoroog sa ngóor muy génn waa dina jàmbat lu des si sa dund amul defal naa la ko tey mm-hmm. baax na suba baaxul tey baax na suba baaxul du doo ko doo masaala ak moom mm-hmm. bu keroog ngay génn àddina ni nga ko buggee day mel hmm? di nga ko am njaboot macha allah ci garabu kattan mm-hmm. da mu bokk ci ñoo xamante ne ñu bari dañu naan rab moo leen jàpp ñii naan seytaane moo leen jàpp ba seen ngóor a dellu ñoo ñëpp nga xamante ne loolu moo leen dal saafara bi yaa ngi koy saafaral comme ni nga koy defee. waaw nit rab la jàpp rab hmm. hmm. ki mu am àndandoor bu fiir bu bon nga tàkk ko ni moo nekk seen diggante. Hmm. àndandoor boobu noonu mun topp yàq sa ngóora. mu nar a topp yàq sa nguur dootu nekk góor kii bi bi dafay nekk di dellu gati moo waral góor boo gisee lislaam bu góor boo amee yenn ati tan ñu soxla ñu jox la soxna nga nekk ak sa soxna mu nekk caakaan caakaan boo koy def di nga di nga dem ba daje jigéen bi nga xamante ne kii rawaxaanam dafa bon topp yàq sa àddina mhm. moo waral ñuy tere tere caaxaan macha allah ci kàddu yooyu muy lu am solo waaye leneen li nga xamante ne saa su ne dama koy faral di wax ndax da nga naan ma teraanga yi ci kër gi yëpp samay taalibe ñooy jug saa su ne di ko fi def lan moo tax ceeb euh, Chérif di wax nii buggul nit koo xamante ne yàlla daf kaa teral nit ko dem ba jaaxle ci boppam nit ko dem ba amatut yaakaar ci boppam fu ne mu dem fa amul fa solution kooku nga soxla pour dimbali ngay ñaan yàlla nga nekk nga wax yow li mhm. ngay liggéey mun nga ko nga te ñun suñu bopp ci ngay xam ne li nga jàng bu jaar na wala jarul nit da ngay xool fu dara nekkul mhm. fu dara nekkul nga def fa dara nga mhm. te boy boy sa booy booy boy sa booy saxal garab doo ut bu mag bu mag bu mag nga tagu ko sa kër nga ngay téye garab bu ndaw ngay ut nga nga def ko sa kër di ko di ci sotti ndox di ko mu màgg sëriñ noonu nga war a def da nga wut a ut ki nga xamante ne bu amee tey du am suba bu lekkee tey du lekk suba nga fexe mu dem ba nekk kilifa ñu koy boole ci kilifa yu gën a mag ci àddina bi loolu moo nekk ndam sëriñ bi di nga xam booba yow li la jox lii bu dee am na njëriñ wala amul njëriñ boobu nga koy xam. Mhm. waaye bu dee ñu dem bu amal seen bopp seen alal ñooñu doo mun a xam li ñu jox li jar na wala jarul. dëgg la nit ki kat mun na am alal mun nga ko dimbali alalam du yàqu. du mhm. yokku alalam du yàqu. du mhm. dellu ginnaaw day yokku lépp lu mu song dina ko daal. nga nit mun nga am alal am yenn kabaar nga soxla du sa alal moo la ko may. foog nga am ñaan tam yàlla dimbali nga ci àll ci. mun nga wàllu cat topp la sa àll di yàqu nga dellu ginnaaw. waaye lu génn ci sëriñ. ngay samp ay nit. moo xamante ne nit yi nii yow yaa leen sàmp. Mhm. yaa leen dimbali bu ñu am. waaw ñooñu ñu suba boo leen soxlee. Mhm. dina yomb. wallaay dëgg koo ci wax jëndal ma kër. Mhm. dina yomb. koo ci wax jëndal ma dina ci woo dina taw mu ñëw di nga xam te lu nekk ci moom ni yow yaa nekk sabab bi ndax yàlla rek mooy def. waaye yow yaa nekk sabab bi. macha allah ci kaddu yooyu noonu waaye leneen li nga xamante ne saa su ne dama koy faral di dégg jafe-jafe këyit Thierno ci neuf jours la la koy defaral. dëkk boo mënti ne ak fii ci réew mi sax nit dina fi nekk di am jafe-jafe kayit da koy faxat di wax daa duggagul sa nopp waaye boo ko duggee sa nopp aada boobu day faju waaw loolu foo mënta nekk. Mhm. bu nekkee ci réew Touba bu ma xam ne Touba li nga nekk. Mhm. karaw Touba la ci boole. mu mhm. ngi ko ci boole boo tëddee guddi yow si sa bopp. di nga li ma lay liggéeyal am na. balaa juróom-ñetti fan di jot si sa kayit. xëy na nekk def nga fukki at nga am na ay taalibe yu fa def fukki at. Mhm. yu fa def ñaari fukki at am na ay taalibe yu fa def ñaari fukki at ak juróom ñëw nañ ko fi toog ak man. Mhm. dimbal na leen am nañu ay kayit. Mhm. ñëw nañ ko fi toog ak man. ci juróom-ñeenti fan. bu nekkee daf laa jafe kayit daf laa jafe doomu fay. dama ne liggéey nga jot ci kayit bi. boo xam ne jot nga si sa kayit nga doog maa fay kayit boobu ngay demee nga yónnee ko xaalis bi nga yónnee. moom ngay jëfandikoo. macha allah. macha allah ci euh, kàddu yu am solo yooyu waaye leneen loo xamante ni nag Cherif damay faral di dégg wala ci yow rek laa koy déggee du ma sax gis euh, ñaankat wala sëriñ boo xamante ne dafay faral di wax ni damay liggéey loolu yow laa dégg nga ne fay wax yow rek yaa koy def fii ci réew mi ak coow nu mu mën a toll ak wax nu mu mën a toll bu duggee sa nopp coow loolu ci suuf la koy teg. parce que ñu koy liggéeyee di mun nga ko liggéeyee jox la wax bi du dootu ci wax ku ci wax da génn àddina hmm. ñu hmm. bu weex bu ci néew hmm. ñu defee ko baay ji xam nga ci àll bi ñun fii nii nit ku génn àddina baay ji lañ koy takkee mooy lu ñuy dindi ci garab yi ñu def buum loolu lañ koy takkee baat yooyu noonu ci moom lay jëlee ci loolu ma def ko ma su ma ko defee ma wut lu diis ma teg ko ci ku wax ci wax ci wax bi dafay génnaate nit dootu ci mun a nit dootu ci mun a wax loolu man du ma ci loolu dañ ko yeewee nit mm-hmm. dañ ko noobee nit waaye loolu duñ ma ci du ma ci nangu no ku amul boo ci noobee nit bu amul biddéew day dee laa ilaaha ko wax ci boo ko waxoon xarul ni day xaru du ma la si noble nit boo ko waxoon tey dugal nit ci teen nit ki donc loo ko bugg noonu nga koy foowee nit liggéey secret bi nga xamante ne pël yi xam nañ suma mbokk yi xam ko nit yu xamante ne nit ñu xam dëgg dëgg dëgg dëgg liggéey kam nañ li may wax sànq dama ñëw toog di waxtaan ak taalibe ba nga for ko ci sa nopp ñu naan Adji Sarr génn na réew mi taw waaye da nga koku de bu togon ak man wax jooju senegal dootuñu ko tuddati ba illa yow mi ku ko tuddu ci bammel nga jëm. dina dina nga nit. Mhm. dina la mhm. nit sa ci nit ci mhm. nit na jëfante dem ba toogaat mu am jamono sa xol bu jukkaat nga def ci loolu te def wut ci ñaan bo gën loolu nga wut ci ñaan moo gën coow bu xase am diggante doomu adama doomu adama nga wut ci ñaan nga fay coow te coow saa yu nekk mu ngi jugaat saa yu nekk mu ngi jugaat waaye kooku kale jigéen la jigéen amul doole jigéen amul doole góor bépp góor buy fayantu ak jigéen bépp góor buy nakkaral kol jigéen balaa ngay génn àddina say mbokk dinañ la yërëm say nawle dinañ la yërëm. ci yàlla mos ci kenn mhm. kale la. Mhm. nit ku dem ba yàlla may la nguur lu toll ni nguur liggéeyloo yàlla lu tax mu la koy may. Mhm. ñu mu bàyyi ñu ko ñu tax mu leen di bàyyi. yàlla moo la seppi si say nit ba yëkkati lu toll ni nguur ci nga xam te ne ci yéen ci palaasam la mu jox la ci. danaa war a baale. danga war am xolu yërmande boo tey am xolu yërmande tey baale kooku kale la tan jigéen la dafa juum nit ku nekk mun na juum moom ci boppam buur bi tey ki nga xam te moom la yàlla fal xale bu jigéen bi juumoon ci moom mun na dem bi juumaan dëgg la man nit day baale nit koo mun doole kooku dëgg la nit koo mun nga xam te doole bon gis nga ñetti nit sëriñ buur borom alal. Mm-hmm. ñooñu foog ñu nekk nit yu baax. Mm-hmm. nga di man tey nit mun na mun suma kaw. ma xam mm-hmm. ne kii man maa tey tey am na ay surul yu may def lu def si sa àddina mun nga yàqu. am na surul yu may def mun nga génn àddina waaye ma xam ne ne kii de bari aadama la ni man. def juum nit motul ma baal la ci yàlla moo nekk boo nekkee buur yàlla bi ma ñëwee fekk naa ko fi gis ko mu doon lu ma jaaxal waaye dañ may xamal ne rek lépp rek ci mbirum baatin la ñëw naa fekk sànq nga rey fi ay jur yu bëree bëri bëri tey li nga tuur ci deret dafa bëri lu ko waral si waaw sarax la. Mhm. sarax yi ñu war a def parce que liggéey sarax moo nekk buntu liggéey. Mhm. ni balaa nga koy liggéeyal. di nga xam sarak yan ngay def sarak yi mooy neexal rawaanam mooy ubbi sa diggante yow ak biddeewam li nga koy ñaanal mu mun a am nga di sax dafa am solo ci doomu aadama lépp looy def ci àddina da di génne sarak mhm. di neexal rawaxaan baax na ci man koy liggéey gi baax ci kii nga xam te dañ koy liggéeyal mhm. nga ay nga ne ay rawaxaan booy booy liggéey ak ñoom da nga neexal bu dul loolu day dellu si sa njaboot mhm. man suma boobu day dellu ci suma njaboot moo war a bala ma jigéen ñi dañuy defati sarax ñu neexal sarax waxaat mhm. ñu ubbi sama sa biddéew sama diggante ak sa biddéew mhm.